salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen chaîne Daawatech TV mbokk yi tey dañuy waxtaanee naka la ñuy def ba sélectionner texte copier texte ak coller texte dina leen won tamit yenn raccourci clavier la ñu mën a jëfandikoo maanaam yoon bi nga xamante ne yoon bu gaaw la ngir boo leen bëggee copier coller couper ak sélectionner texte. lii mooy suñu texte bi ñu am texte bi nag dafa am ay paragraphe paragraphe baa ngi nekk nii lii paragraphe la lii paragraphe la lii paragraphe la su fekkente ne da ngeen bëgg a sélectionner ab baat maanaam baat bii askanu da ngeen koy bës ñaari yoon boo leen ko bësee ñaari yoon mu sélectionner ko su fekkente da ngeen bëgg a sélectionner bi yëpp da ngeen di bës foo leen munti nekk ci paragraphe bi ñetti yoon ngeen di cliquer ñetti yoon ngeen di bës boo bësee ñetti yoon mu sélectionner paragraphe bi yëpp boo leen bëggee sélectionner leen neexee mun ngeen ñëw ba ci kanamu baat bi ngeen cliquer ngeen glisser ngeen buux boo leen bëggee sélectionner paragraphe bi yëpp tamit da ngeen di cliquer ngeen buux ba fi ngeen bëgg li ngeen di sélectionner mu yem bu leen neexee ngeen wàcc ba ci texte bi yëpp. léegi nag su fekkente ne da ngeen a bëgg a sélectionner maanaam rëdd bi yëpp ngeen bëgg a sélectionner da ngeen di jël seen souris ngeen buux ko ba mu ñëw ba seen càmmooñ gi ngeen gis ne souris bi soppeeku na melokaan gis ngeen nu mu mel boo leen ñëwee ci texte bi nii lay mel boo leen nekkee feneen gis ngeen nu muy mel boo leen ñëwee ba ci càmmooñu texte bi da ngeen gis ne souris bi soppeeku na melokaan lii nag mooy wane ne mën nga sélectionner ab rëdd ligne bi yëpp mën nga ko sélectionner boo ñëwee dangay ngay bës benn yoon mu sélectionner la ligne bi yow nag yaay xool ban liiñ nga bëgg a boo ñëwee nga bës mu sélectionner la ko. léegi nag su fekkente ne nii nga bëggee def pour sélectionner paragraphe wala ab pàcc bi nga xamante ne ci texte bi la nekk nii ngay def nga bës nga glisser nga buux ba fi nga bëgg a yem. su fekkente ne nag da nga bëgg a sélectionner texte bi yëpp da ngay ñëw nga bës ci sa clavier contrôle A boo bësee contrôle A lépp lay sélectionner du bàyyi dara ci texte bi léegi nag bu fekkee da nga bëgg copier benn baat da ngay ñëw ci baat bi nga sélectionner ko da bës ñaari yoon nga ñëw fii ñu bind copier nga bës fa boo ñëwee nga xool fa bi nga ko bëgg a def muy fi nga ko bëgg a coller nga ñëw nga bës su la neexee coller bi mu indi ko wala nga bës clic clic droite mooy si sa souris bi si ndeyjooru souris bi ngay bës nga ñëw nga bës fii nii nga coller ko bu la neexee nag nga tànn ci ban xeetu coller nga bëgg kole su fekkente ne nag da ngaa bëgg a couper bi maanaam baat bii nii nekk fii muy Sénégal mu nga bëgg mu deñ fii dem feneen da ñëw nga bës fii couper gis nga dindi na baatu Sénégal askanu baatu Sénégal bi dañ na léegi nga ñëw fi nga ko bëgg kole su fekkente ne fii nga ko bëgg kole ginnaaw ginnaaw nga ñëw fii nga bës kole ginnaaw Sénégal gis nga ne jokk na baatu Sénégal fii wante nag am na ay raccourci clavier mooy yoon bi nga xamante ne yoon bu gaaw la ngir copier wala coller texte da ngay ñëw si baat bi nga bëgg a copier wala bi nga bëgg a nga bës fa ñaari yoon nga bës contrôle C mooy copier na ko nga ñëw ba fi nga bëgg kole maanaam fii nii nga bës contrôle V contrôle V moom mooy coller baat bi nga copier woon su fekkente ne baat bii danga ko bëgg a couper da nga ñëw nga sélectionné ko nga bës contrôle X gis nga dindi na baat bi nga ñëw ba fi nga ko bëgg a coller nga bës contrôle V gis nga yokk yokk na baat bi fii nii yooyu noonu nag ay raccourci clavier yi nga xamante ne mun nga ko jëfandikoo léegi nag su fekkee da ngaa soppi ab mbir. ci diggante bi ni nga ko soppee neexul nga bëgg delluwaat ginnaaw wala nga bëgg a ñëwaat ci kanam mun nga mun nga jëfandikoo ay raccourci clavier bu ñu jëlee baat bii di askanu Sénégal ñu def ko gras ñu gën ko ngandal gis nga soppi nañ baat bi su fekkee dañ koo bëgg delluwaat ginnaaw mu mel comme nu mu meloon da ngay bës contrôle bës Z boo bësee Z mu dindi lim ci defoon dangay ngay bës ba keroog ngay am li nga bëgg gis nga delloowaat ko nu mu mel su fekkente ne nu mu meloon nag moo ma gënal bu boobaa dama bëgg delluwaat kanam damay bës contrôle mu bës Y boo bësee Y moom moo lay delloowaat kanam ba ni nga meloon ci fàttali contrôle Z moom mooy delluwaat ginnaaw ci lépp li nga soppi contrôle Y moom mooy delluwaat kanam ci lépp li nga soppi yi nag ay raccourci clavier yi nga xamante ne mun ngeen ko jëfandikoo te day gaawal seeni mbind. su fekkente ne ba léegi da ngeen bëgg dindi ay baat maanaam da ngeen bëgg a supprimer di ngeen ñëw si seen clavier ngeen xool baat bi ngeen bëgg a maanaam askanu laa bëgg a dindi. ma ñëw ma bës backspace si clavier bi bouton bi moom moo lay dimbali ngir nga dindi baat bi wante nag mun nga dindi baat bi su fekkente da ngaa nekk ci kanamam su ma nekkee ci kanamam nii ma bëgg ko dindi damay bës supprimer gis nga day mel ni luy muucu baat gi nga bëgg a day mel ni luy muucu li nga bëgg a su fekkente ne paragraphe bi yëpp laa bëgg a dindi damay ñëw ma bës ko rek day mel ni gis nga lu koy muucu day mel ni luy xëcc ci paragraphe bi te noonu la koy dindee ba mu set wicc wicc lii dina leen dimbali ngir bu fekkente ne da ngeen a nekk ci kanamu baat bi ngeen bëgg a supprimer wala ngeen nekk ci ginnaawu baat bi ngeen bëgg a supprimer wante su fekkee dañoo bëgg a delluwaat ginnaaw comme ni ma leen ko waxee woon sànq li ñu dindi dañ ko bëgg a indiwaat dañuy bës contrôle Z moom day delluwaat ginnaaw benn par benn baat yi mu dindi woon lay indiwaat da ngeen di bës rek téye mu indiwaat ba fi ngeen bëgg mu yem bu leen neexee nag ngeen jëfandikoo boton bii nii ngeen bës moom mooy remplacer contrôle Z ni ngeen ngeen di bës nànk-nànk wala ngeen bës contrôle Z ba mu dindi ko ba indiwaat li nga xamante ne lépp la dindi woon ci li ñu bindoon. lii lañ leen indiloon tey ci copier sélectionner ak couper texte ak yenn raccourci clavier yi nga xamante ne dina leen dimbali boo leen di tëgg ab ngara. ngeen bind ko ci mbind mu gaaw te doo leen amee benn jafe-jafe jërë ngeen jëf